البكاء غدا رضوان من فيه غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فضل الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم وشور معا مثل العسي بود والخدوات كانوا عباد عباد Oh, jëm ci waajtaayu bis bu mag bii ñu jëm ci ñaari fan ñetti fanu muharram di ci fàttaliku nitu yàlla ku màgg di si Abdul Xaadir ñu ngi leen di siyaare ñun ñëpp di leen nuyu nuyu yi gën a kawe di nuyu mbooleem ñu fi teew ah di ñëw tey rek ci jataay boo xam ne incha allahu taala jataay xam-xam lay doon nga xam ne commission bi waajal màggal gi daf koy faral di def di ko waajalee màggalug Sëriñ Abdou Khadr te mooy di ci def ay waxtaan yoo xam ne nit ñi danañ ko mën a yóbbuloo di ko jariñoo ci seenug dund ah, sëriñ Sidi daf koy faral di wax ne ginnaaw ñaan yi nga xam ne njàngum alxuraan la ak xasaayit ak zikr salaatu ala nabi ak zikr gu mën a doon ñu koy def ci bis bi di ko jëmale ci borom bis bi dara ëpp ci solo ah, waxtaane ak dundam ay jël ci ay tomb yoo xam ne buñ ko nafaraatee bu baax a baax ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci ginnaawam danañ ko mën di jariñoo ci sunu dund loolu rek moo indi tey ñu def jataay bi dajale fi ay boroomi xam-xam fas ne ànd ak ñoom ci waxtaan wu am solo woo xam ne day jëm ci li ñuy wax almasuliya te mooy responsabilité ñu tibbee ko ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi ci addis boo xam ne sayidina omar abdullah ibnu omar radiallahu anhuma moo ko dégg woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi waxoon ne kullukum raain wa kullukum fi baytihi raain wa mas'ulun fi bayti zawjiha raiyatun an raayatiha walxaadimu fi maali say sayidihi raain wa masulun an raayatihi wa boobu nga xam ne dafa bokk ci jawaamihu kalimi rasulillahi sallallahu sunu borom ni mu ko joxe alxuraan la ko joxe li wax jawaamihul kalim muy ay wax yu nga xam ne day fees dell ak njariñ ba noppi day làmb lépp day làmb lépp hadis bii nag ni ñu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf cee wax ne ñëpp ay sàmm lañ ñëpp boo xoolee addis bi bàyyiwut kenn dafa njëkk wax ne ñëpp kenn ku ci ne ab sàmm nga te danañ la laaj li nga doon sàmm daal di tàmbalee société bi ni mu tëddee responsabilité yi mu mel ne dafa tàmbalee ci kaw ba ci ki mujj ci suuf muy wane ne kon bàyyiwut kenn hadis boobu nag incha allahu taala moom lañ bëgg a jàngat jàngat tamit nan la ko Cheikh Abdoul Khadir dundee woon ndax niñ ko xamee ñun ñëpp Cheikh Abdoul Khadir ah, kaanat sunnatan tamsi ala al ard dafa nekkoon sunna su daan dox ci kaw suuf ñëpp xamee nañ ko baatub istiqaama te istiqaama boobu du dara lu dul tegu ci yoon wa di dox ci sunna dox ci alxuraan ak sunna ba kon dana baax ñu jàngat xadis bi waaye jàngat itam nan la ko Sëñ Abdul Xaadir moom jëmmale ci ak dundam ndax uh, Sëñ Abdul Xaadir ak ñu mel ni moom ñi mu bokkal Serigne Touba ak mbooleem ñi nga xam ne dañu nekkoon ci ron keppaar ak Serigne Touba mu tarbiya leen uh, dañuy faral di wax ne ay aimatu huda lañ ay imaam lañ ci ak njub uh, dafa bokk ci lu sunu boroom Euh, jàppale Serigne Touba ci liggéey bi mu boole ko jëmm yu mel noonu nga xam ne dañ koy dañuy wone nit ñi li tax a jug sëñ bi aaya boobu suñ borom di wax ci suuratul anbiya bi mu limee anbiya uy ak seeni jaar-jaar daf caa wax aaya boo xam ne dafa wax ne wa jaalnaahum a'immatan yahduuna bi amrina wa awxaynaa ilayhim fi'ala alxayraati wa iqaama alsolaati wa itaa alzaka wa kaanu lana abidin ñoom ñii di yonente yi dama leen a def ñuy nekk ay imaam yu nga xam ne dañuy wone yoonu jub ci sama ndigal ma def ci ñoom mel na dama leen mooñaale dama ko dama leen ko wax yu ñu ñoo xam ne def lu baax rek la ñuy def def lu baax nag ñaar rek moo ci gën a fees te mooy jaamu yàlla ci boppam ak jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi te mooy iqaamatu salaa ak itaawu zaka ñu doon ay nit ñoo xam ne saa foo leen fekk ay jaam yàlla rek lañuy doon ci seen wax ci seen jëf ak ci seen melokaan Seex Abdu nag doonoon ku ràññeeku ca ñooña kon dana jaadu buñ koy waajalal bis biñ koy fàttaliku ñu jàngat ak dundam jël ci loo xam ne danañ ko jariñoo ba déwén ak jàmm insha allahu taala tey jii nag waxtaan wi kon day wën day wëndeelu ci addis boobu yonent bi sallallahu wax ne kenn ku ci ne ñun ab sàmm la te bu ëllëgatee dana taxaw ci kanamu boroomam ñu laaj ko lam doon sàmm nan la ko sàmmee ñu fas yéene ci ànd ak ay boroomi xam-xam ay gëstukat ay jàngkat yu ñu ràññee fii ci dëkk bi ak ci réew mi yëpp ah, di ci jiital sëriñ Fallou Bousso as moom sëriñ Thierno Bousso incha allahu taala danañu dikkal ci addis bi ci lu yaatu gën a taxaw ak ñun ci maanaam addis bi incha allahu taala ci lu toll ci ñaar fukki minutes rek incha allah bu àggalee dañu jox sëriñ Mamor Mbacke xam sa diine moom itam muy ku ñu xam euh, di gëstukat ñun ñëpp ñu xam ko ci taxawaayam ci diine ak ci jàngale diine mu ñëw ak ñun ci hadis bi ginnaaw bu ko sëñ Fallu bu so leeralee nan la ko see Abdul Xaadir jëmmale woon moom incha allah sëñ Mamor danañu ñëwal ci loolu bu noppee nag ñu ngi fi ànd ak yeneen ñaari mbokk. sëriñ Sam Bousso moom sëriñ Abdoul Wadoud ak euh, sëriñ Lamine jóob ñoom itam danañ ci indi ay commentaire yoo xam ne danañ ñu tënkal waxtaan wi nga xam ne sëriñ Fallou Bousso indi euh, na ko ak sëriñ Mamor incha allahu taala kon xam naa ngir njëkkante waxtu dañuy jox kàddu gi sëriñ Fallou Bousso jiite daar yi Cheikh Mourtada jëcc Thiès di borom xam bu mag boo xam ne ñëpp xam nañ ko moom itam ci taxawaayam ci lislaam ak jàngale diine mu ñëw ak ñun ci addis bi nga xam ne sayidna abdullah ibn omar radiallahu anhuma moo ñu ko jottali mu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu Seex Abdou Khadir Mbacke radiyallahu anhu di jaare ci moom di jottali sunu nuyoo mbooleem ci mbooleem njaboot ak ak Seex Abdou Khadir waaye bu dee ci jataay bi itam ñoo ngi nuyu sëriñ Serigne Sidi Mbacke di ko ñaanal fan wu gudd ak wér gu yaram ba li bëgga bëgg a liggéey moom itam ci kër Seex Abdou Khadir sunu borom dimbale ko ba mu ko di nuyu ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal jataay bii di sëriñ Sam Bousso mi ak sëriñ Mourtada ak sëriñ Mamor Mbacke ak sëriñ Lamine Diop ñoom ñëpp ñoo ngi leen di niw di xam le nag ne nii ko sëriñ Mourtada waxe noonu lañ bëggee waxtaan bi joyantiku jëm ca. te mooy xadis bi nga xamante ni moom la fi jàng léegi tam tàmbulee ci kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raiyatihi ñuy xam rek nekk ne suñ tànnee benn xadis di ko lëkkale ak dund ak Seex Abdul Qaadir Mbàkke wàccuñ yoon wa ndaxte sunna si yonante bi alayhi salaatu wasalaam ni ko sëriñ Murtala junje léegi sunna su doon dox ci kaw suuf la ku fonkoon sunna la moo tax euh, sëriñ alxaaji Mouhamadul Mahmoud Ñang xafisahullah waraahu bi muy marsiyaal Seex Abdul Qaadir junj na ca loolu nga xam ne ñun ñëpp ca ànd te mooy ni mu tënkoo woon ci sunna si yonente bi alayhi salaatu ma ngay wax ca xasidaam googee naan fa haada sayxu sayxun du tibaaci li sunnati mustapha muftil qudaati nee seex abdul qadir sëriñ la boo xamante nii fa yonente bi alayhi salaatu tegoon tànkam la teg tànkam di xeñtu sunnaam loola itam nag moom la ko Cheikh Abdoul Aziz Sy Dabakh ca Tiwaawoon melale woon dafa waxoon ne Cheikh Abdoul Qadir day ku ragal yàllaa ngi nii boroom xam-xam a ngi nii waaye sunni la sunni nag mooy koo xam ne day tënku ci sunna su yonente bi alayhi salaatu ca la waxe woon na kaana taqiyan aaliman sunniya wa xaaifan li rabbihi mardiya teg ca ku wegu la woon ku rafeti jikko la woon ku daa roy ci yonente bi aleyhi salaatu nga xam ne mooy yore sang sangu jikko yépp yu baax yëpp kaana waquulan xasanal axlaaqi muqtadiyan bi sayidil axlaaqi nee na nag ñëpp a yemoon fa moom amutoon xàjj ak seen ci warmaal ñëpp ak bëgg ñëpp siyaana indahu alqarib wal baid yaxtarimul kulla li rabbina al majid nee na ñëpp la joxoon cër di leen warmaal ak di leen yëg te def ko rek ngir jëm yàlla tabaraka wa taala kon nag buñ tànnee xadis boo xamante ni benn la ci xeeti sunna yi rote woon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mooy as sunna al qawliya ndax sunna kat ñetti façon la sunna soo xamante ne yonent bi daf ko wax ak jum jëf ak jum saxal ji nga xam ne moom la Abdullah ibn Umar netti nag min as sunanil qawliya ci sunna si nga xam ne ci ay waxam la bokk moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mii ko netti nag di Abdullah ibn bokk ci kenn ci ñeent ñañ daan dàkkantele al abadilatul arbaa muy abdullah ibnu omar mi abdullah ibnu mas'ud abdullah ibnu zubayr abdullah ibnu amr ibnu as mooy nett li xadis bii ne déggoon naa bi alayhi salaatu wasalaam bis muy waxtaan ba wax ne kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raiyatihi loolu nag tënk na lu rëy rëy ndax dafa wax ne kullukum baatab kullu nag ci nga xam ñi nga xamante ni dañ yittewoo làkku arab bay gëstu ci bunt bi ñu tudde baabul xaas wal am booba daanañ wax ne fooy gëstu ci biir alquran wala ci sunna fekk fa baatab kullu wala qaatiba wala amma nee na atte ba farot bu matala la kon kullun baatab kullu min alaamatil moom mooy atte ba ca rot ca biir wax joojee day làmboo ñépp ak fépp ba kero ñuy gis luñ ne dañ ko caa génne wala ñuñ ne dañ leen caa génne kon bu ne kullukum raayin ñëpp ay sàmm lañ wala képp ku nekk ci yéen ab sàmm la kon kenn génnu ca wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi waaye képp ku ñuy sàmmaloo itam bis dana ñëw ñu laaj la la nga doon sàmm ak noo ko doon sàmmee su yemoon foofu rek moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci tënk moo doy sëkk ndax ñëpp dugg nañ ca kenn génnu ca waaye nag nuru na ne am na ñu ko ñor ñu bëgg a préciser wax ji ci ñoom gën leen a fësal tudd ca ñeent ka ca njëkk mooy al imaam moo tax mu ne al imaamu raain wa masulun an raiyatihi imaam nag mën naa firi njiit mooy njiit rek wala kilifa boo ko xasee tuddee njiit képp kuñ jiital ci dara dangay ngay am responsabilité bu mag ca nja jiite soo ko tuddee kilifa képp koo xamante ni kilifa nga ña yilif da am baat ci ñoom am ay responsabilité yu mag yuñ gàll ci yow muy wàcc ci ñoom kon kooku nag mën naa làmboo njiital réew mën naa làmboo ab buur ku nit ñit fal tudde la buur ci àdduna mën naa làmboo euh, gouverneur ba ci préfet sous préfet ba ci limaan ji jiite ci jàkka ba ci ku jiite association wala nga jiite ak mbootaay wala nga jiite ab école wala nga jiite ab daaira lépp képp koo xamante ni bokk nga ci xeet yi nga xamante ni dañuy jiite mbooloo ñooñee nga yilif jiite leen ab sàmm nga ci ñoom kon lan lañuy séentu ci yow mooy jalbul masaalix wa darkul mafasid mooy lépp loo xamante ni njariñ la danga leen koy war di xëccël di ca def sa kemtulaay kàttan lépp loo xamante ni ak yàqute la itam da nga leen koy war di jañal ginnaaw dañ laa tudde ab sàmm te ab sàmm ci cosaan mooy kuy jiital ak jur fa leen fum leen jëmee mooy foo xamee ne am na ñax mu naat mu xamante ni moo ko moom wala kenn terewu ko wala mu bokk ko yépp foofa la leen jëmale seetal leen fa fa gën a naat itam mooy la leen amal njariñ nga xam ne mën nañ koo dunde ñoom jur ga ca la leen di xiirtal waaye dana fexe we itam nag duñ jéggi ñax moo mee nga xam ne moo ko moom moom sàmm bi wala moom ñépp ko bokk ba ñuy dugg ci feneen di fa ruur wala ñu fa yàq di yàq alali keneen mooy kon dana leen xëccal njariñ di leen jeñal lor loolu nag buñ ko jëlee ci kuy sàmm ak jur andi ko ci nit ñi kon danañ xam ne kon ñii ñu njëkk a tudd yonent bi aleyhi salaatu salaam njëkk koo tudd te mooy al imaam te ma firee ko kilifa wala koo xamante ni jiit nga ak koo man di doon ci façon nit yooyu mooy lay sëb liggéey mooy luy jariñ nit ñi ca nga war a dox luy lor nit ñi itam nga war koo sori ki ma ciy joxe misaal mooy bu dee njiital réew war naa fexe ba nga xamante ni lépp luy jariñ xeet bi yi nga xamante ni moo yore seen responsabilité mu cay dox war naa fexe ba ñu am dund gu nëtëx gu neex war naa fexe ba bu ñu woppee mën a faju am ndox mu sell am électricité bu doy loolu lépp war na cay dox war na dox itam luy dundal seen ak ruux te mooy di jàngal te am këritam njàng bu dee ñoo xam ne diine ñor na leen tam mu suuxat ci ñoom diine jooju jàngal leen ko boole ca jikko yu baax loola su ko defee mooy warugaram su ko deful itam mooy warugaram te bu ko deful nag ëllëg dana ca yayoo yayoo la ñuy wax dana ca yayoo mbugal ndax mën naa tuub te bu tuubee su tuub ga sellee sunu boroom mën na koo jéggal loolu ñu wax ci moom nag ni lay rogalaate di wàcc ku ci nekk ci képp koo xamante ni yilif nga mbooloo wala nga nekk kilifa lépp loo xamante ni lislaam da koy sàkku ci yow ci luy jariñ mbindeef yi war nga cay dox lépp loo xam ne daf leen di lor itam war nga koy teet bu dee ci njiital réew lépp lu yàq xele nit ñi lu mel na dorog ak wuruj ak euh, ger lépp war na cee jox jóg ngir mu jóge fi ndax loolu du dundal am réew te du ko yokk ka nga xamante ne moo ca toppaat te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fesal ko nee na ar rajulu raain fi ahlihi wa masulun an raiyatihi nee na boroom kër ci biir këram ab sàmm la ñan lay sàmm nag kon ka ca jiitu mooy ak njabootam gim jural boppam ak i soxnaam ak ñaari way juróom yu néew doole yoo xamante ni moo leen di dimbale ñooñu dañuy mujj nekk ci ak njabootam ginnaaw bañ mënee ñoom ñaari way jur ya ñoo ko féete woon di ko jàppale booba ñoo nekkoon kilifaam waaye buñ demee ba lott nag tële jamono jàpp leen seen doom bu amee man moo leen war a fiite féete foofa ñu wëlbati ko bokk ci ak njabootam bu ginnaaw bañ xamee ne boroom kër ñii la war a sàmm muy njabootam ak soxnaam ak ñaari way juram yu néew doole nan la leen war a sàmme ak fan la leen war a jëmale war naa fexe ba ci njaboot gi luñ soxla ci alal tam man ko mu defal leen ko di leen woddu moom ay njabootam ak i soxnaam ba ci way juróom yu néew doole yooye ak i jegeñaaleem sax yaa xam ne dañoo nekk ci ronam war na leen di dundal di leen jox ab dund di leen woddu di leen faj di leen jàngal yii nag eh, am na ci yoo xamante ni nit ñi moom lañ jiital muy luy defar yaram rekk muy bu le bu bëggee lekk ñu jox ko mu lekk su bëggee naan ñu jox ko mu naan su bëggee faj yu ñu faj ko su bëggee fu fattu fatu di fa dëkk ñu wutal ko ko loolu lañuy nit ñuy gën di xante woo baax na de waaye nag am na loo xamante nii moom la diine jiitaloon te mooy ñuy suuxat jikko ju baax ci ñoom ak diine ci ñoom loolu lépp nag ku xam diine yooyu yëpp ngay boole dangay dundal yaram di dundal ruux ndax te ngay mën a bokke ca loola sa sa borom santoon ci yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara wa quuduha annaasu walxijaara alayha malaikatun gilaasun sidaad laa yaasuuna allaha maa amarahum wa yafaluuna maa yumaruun waaye nag buñ ko salfaañee comme ni mu xewee ci jamono nga xam ne waajur day yittewoo luy defar yaramu doomam ak i soxnaam ak juram ñu néew doole waaye sàggane lay defar seen ak ruux nag bu boobaa na ko wóor ne lam def xeebuñ ko baax na de waaye nag lam yittewoo mooy loo xamante ni lu yàgg-yàgg day raaf te mooy lu jëm ci àdduna sàggane na loo xamante ni itam lu yàgg-yàgg moo fay des te mooy luy dundal àllaaxiram te lañ ko digaloon nag mooy luy dundal àdduna waaye itam di dundal àllaaxira ndax mooy kër ga nga xamante ni moo fay des kon kooku mooy ñaareel bi mooy góor gu nekk ci biir këram yore këram lan mooy ay responsabilité ak ci ñan la jëm su ko defee nag su defee loolu ko war sunu borom te def ko ngir jëm yàlla su ko sunu borom nangoo mën na ko caa bindal tuyaaba ëllëg yowmal qiyaama su fekkee taxawu ca nag yayoo na mbugal ëllëg su tuubut ndax su tuubee te tuub ga sell sunu borom mën na koo jéggal ñetteelu ki nga xamante ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam cité na ko ci biir xaddis bi mooy almaratu bi maana zawja almaratu raayatun fi bayti zawjiha wa masulatun an raiyatiha soxna boo gisee yonent bi alayhi salaatu ci lima ma yaakaar ne moo tax mu tudd borom kër wëlbatiku tuddaat soxna ca biir dafa bëgg ñu xam ne ñaari nit lañ yu beru yuñ wàccandoo ci kaw suuf muy góor gi ak jigéen ji ku ci nekk itam am lu mu war a dox loo xamante nii su ko doxee te def ko ngir jëmi yàlla sunu borom bindal ko ca tuyaaba su ko sàgganee su yaayoo ci ay mbugal te loolu amut teqale diggante góor ak jigéen moo tax su waxee liggéeyab góor muy borom kër gi mu wax liggéeyab soxna si itam ak lañ koy sàmmloo lañ koy sàmmloo kat mooy alali boroom këram war na koy sàmm bañ ko yàq bañ ko pasar pasare war nay sàmm itam ab deram deru kër gi ak deru njaboot gi war nay taxaw itam ci biir njaboot gi loolu nag su ko defee moom soxna si te def ko ngir jëm yàlla dana bokk ci ña nga xamante ni yonent bi aleyhi salaatu wasalaam taggoon na leen te mooy soxna yu yiwee yi mastafaadal muminu baada taqwallahi xayrun min zawjatin saaliha in nadaraha sarrathu wa in amaraha ataathu wa in aqsama alayha abarrathu wa in gaaba anha xafidathu fi nafsiha wa maalihi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na góor ak jullit góor ak jullit gu gëm yàlla seetlu ne ne bu ginnaaw ba mu gëmee yàlla ba noppi am na lu am solo de waaye nag la gën ci yóbbal bu muy am mooy yàlla baaxe ko mu am soxna su yibee ñu ne ko nu muy mel mu ne mooy koo xam ne in nadaraha sarratu su fekkente ni boroom këram xool na ko gis dana gis ci moom lu koy bégloo loo xam ne day bégloo yàlla itam su ko boroom boroom këram xoolee dana gis ci moom lu koy bégloo te loolee koy bégloo dana bégloo yàlla muy benn wa in amaraha ataatu su ko digalee itam te lam ko digal neex yàlla itam mu topp ko ca loolee mu ko digal tam neex yàlla wa in aqsama alayha abarratu jamono du continuer di neex rek waaye borom kër dënn mën naa tàng ba mu giñ na ko boo defu nangam danaa def nangam nee na boobaa lam tax borom këram giñ su fekkee lu neex yàlla la dana ko def waaye nag bu nekk neexul yàlla nag du ko ca topp ndax laa taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq wa in gaaba anha xafidatu fi nafsiha wa maali su fekkee borom kër génn na kër gi bàyyee ko kër gi moom soxna si dana wattu kër ga wattu alalam wattu boppam loolu nag kon lañ cay dégge ndax dafa dugg ci soxna nu muy sàmmee la mu war a sàmm ci biir kër moo di ne boroom kër di su ko jaamu day ànd ak soxna du jaamu boroom kër waaye day ànd ak boroom këram di jaamu yàlla naka noonu itam li siiw ci jamono ji nga xamante nii léeg-léeg nga gis koo xamante ni day taxaw ne sama wayjur wii gërëm na ma wala jur wa taxaw ne gërëm naa sama doom ji nañ nañ seet lam ko gërëmee lum doon su fekkee lam ko gërëmee luy gërëm loo yàlla la te diina nangu ko loola ngërëm lañ soxla waaye su fekkee lam ko gërëmee nag neexut yàlla du gërëm loo yàlla loola ngërëm du am njariñ naka noonu kon tam soxna si itam la la ko lay tax ngërëm la muy amee ca borom këram ba man caa jaare tàbbi aljana am njariñ na nekk ci lu neex yàlla waaye lii tënk wax ji fii ci diggante soxna ak boroom kër ak lañ séq te mooy njaboot gi mooy nañ fexe fexe ba nga xam ne njaboot gi moom nañ leen teg ci siraatal mustaqim jàngal leen tàggat seen cër itam ci jaamu yàlla tàggat leen ci ay jikko yu rafet mooy tandikoo leen jikko ju bon ki nga xam ne moom la ñuy ci xaddis bi itam mooy li mu moom yonent bi ne alxaadimu raain fii maali sayidihi wa masulun an raiyatihi alxaadimu nag mooy mënees na koo firee ay anam ñi ci ëpp ab surga lañ koy tudde waaye mooy képp koo xamante ni rek dañ laa yilif te nga nekk ci kilifteef ak nit benn ngay liggéey mu lay fay wala nga nekk ab euh, li ñuy wax ab booyam booyam bu nekk ci biir kër gi mu lay liggéeyloo wala sax mu ubbi bitig teg la fa ngay jaay xeet yooyu yëpp dafay dugg ci alxaadim ndax ñun ñëpp dañ leen di wóolu kilifa ga leen wóolu teg leen fa bu boobaa lañ leen wóoloo muy alal ja war nañ koy wattu ba bañ ko yàq te itam ñu am kóolu te itam ci ay jëflanteem kon nag lii nga xamante ni kon Cheikh Mourtada moom la ñuy tëjee waxtaan wi fii mooy xadis a ngi nii boo xamante ni day buñ ko settantalee ga fam tàmbalee ba fi mu yem tënk na lu baree bari ci diine ji tënk na lu baree bari itam ci jëflante bi war a dox diggante nit ak moroomam diggante nit ak ka ko yilif ak diggante kuñ yilif ak ko ak ko yilif ndax yooyu yëpp suñ ko doxalee ku nekk waar bi nga am ci biir tool bi nga bay ko te mbay ma rafet boobaa tool bépp lay mujj daal di rafet lépp daal di awa awaat awaat yoon waaye nag lépp képp ku ci jéggi itam moom lay tëje waxtaan wi ñii ñu tudd képp ku ci jéggi fiñ ñu la rëddaloon bëgg a jàll feneen yaa ngi dugg ci njuumte ndax xir dana waral nit xam ne fii du wàllam dub cëram ay responsabilité am yégu fa ba nepp mu ne naa fa jéggi li ma bëgg a wax foofu mooy koo xamante nii yilifoo ñëpp dangay ngay seet ña nga yilif ngay wax ak ñoom ndax boo ko jéggee njuumte lay dugg si koo xamante ni ab jàngalekat la ak fa ma nga yem ca ñam yi jàngal boroom kër kilifteefam ma nga yem ca biir këram soxna kilifteefam ma nga yem ci biir këram ab surga kilifteefam ma nga yem ca ron kam nekk kilifa ka nekk kilifaam calam ko ca jox ay responsabilité waaye njiital réew nag ak képp koo xam ne kilifa diine nga goo xamante ni nag danga làmboo yu baree bari nag say responsabilité moo gën a yaatu moo tax waruñu laa yemale kenn itam nag moo tax nag la may tëje mooy bu fekkente ni maanaam xeeti suñ xeeti état yii ñi ngi jëflanteeg suñ kilifay diine yu mag yii doonu loo xamante nii dañ leen koy neexale wala ab cër dafa war ndax ñoo leen ëpp sax kilifteef ci réew mii kon lu ñuy def ñoom njiitu réew yi ak gouvernement yii dañ leen caa war a waxtaan ak ñoom bala ñu koy wàccee décision boobu di wàcc ci population bi muy indi ay jiix jaax te buñ jaaxlee ci ñoom dong la ñuy jël si waat wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Fallou Bousso ñu ngi dellu di lu nuyuwaat bu baax sant bu baax ci waxtaan wi ni nga ko indee leer na naññ te làmb na lépp lépp lu addis bi bëggoon a junj rek dafa mel ne taxawal nga ñu ci ci anam gu tënku te leera te li nga ko tëjee di lu amu am solo muy ñaari ponk ba ca njëkk mooy kenn ku ne xam fi sa responsabilité yam nga yem foofa loolu dana bokk ci liy nos société bi bañ ci indi ak jaxasoo ak jiixi ak jiixi jaaxa muy lu amu am solo waaye li nga junjaat ci suuf itam muy ni àdduna tëddee tey nga xam ne day am su rawatina suñu réew mii dafa am kilifay diine te ñoom ñooy yore réew mi ñoo ŋànk réew mi ci ci ci xaqiiqa daal bu ñuy xool ci li te dëgg-dëgg ñoom ñooy kilifa yi waaye ni àdduna tëddee tax ñu am ay kilifa yoo xam ne ñooy doxal mbirum àdduna mi ñooñu ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax kilifa yi nga xam ne ñoo yore réew mi dëgg-dëgg ci ñuy diisoog ñoom ci anam ya ñu war a diisoog ñoom yëpp te di ko bàyyi xel bu baax a baax loolu lu am am solo la loo xam ne ñoom ñoo ñu yore wàllu politique ci àdduna buñ ko doon def euh, réew mi dana ci jariñu lool kon ñu ngi lay sant bu baax a baax ci waxtaan yi nu mu leere ak ni mu amee solo jazakumullahu xayran xam naa kon dañuy jox kàddu gi sëriñ mam Mor Mbacke xam sa diine mu ñëwal ñu ci ay bind yoo xam ne dañ koy jëlee ci xaddiis bi waaye nag wàccee ko ci ni ko si Abdul Xaadir dundee woon ndax niñ ko jinjee woon léegi ci waxtaan wi sëñ Abdou Khadir ñëpp li ñu ko xamee mooy nituk na la woon nituk sunna koo xam ne bàyyiwul dara ci sunna kon nag lépp loo gis ci sun na rek boo demee ci ak dundam forcément da nga fekk ne tatbiix na ko maanaam appliqué woon na ko ci ak dundam kon sëñ Mamor foofu la ñu bëgg yow itam nga ñëwal ñu ci ci ay minutes euh, leeral ñu lépp lu jàppande rek ci Cheikh Abdou Khadir nan la dundee woon li ñuy wax almasuliyata mooy responsabilité bismillah bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi alxururi almayamin wa ala xayri xadimihi dil xabli almatin wa ala man iqtafa aathaarahu bila yawmi ddin mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi nu santee sun borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal ak Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci jotaay bu tedd bii ak li ko tax jóg muy bis bi nuy waajal di ci jiital kilifa kër gi di sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké dëgëral ko kàttanal ko ba lim yéene waa jàlle ko ci jëwriñam ji nga xam ne bis bi ñu waajal wataw lépp ci loxoom la tege te saytu yin wi rafet lool ak taxawin wi muy sëñ Sidi Maxtaar ko ñaanal moom yàlla dëggal ko kàttanal ko ba mu àggali mboolem ay yéeneem di nuyu mboolem ñi ànd ak moom di ko jàppale ci liggéey bi ñëpp suñu dee Sëriñ Saalixo rek ñépp dañu duggaat ci biir di rafetlu itam kàddu eh, sëriñ Fadil ci nim leerale xaddis boobu te ni nga ko waxee sëñ Abdul Xaadir dundam dundam gépp da ko dëppaleeg sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo gis mu jëf ko mbaa wax ko soo demee ci sunna danga ko ci fekk kon ñaar yëf dafa tegoon tànkam ci ñaar yëf alkitaabu sunnatu di ko jëfi jëfinu wéer waaye mu jëmmal lool nag masuliya boobu ndax dafa teel a xam lan mooy masuliyam bi yàlla gàll ci ay waggam mu xam ne nag ngir mu man koo sottal àggale ko fa mu ko bëgg a àggale faaw kon mu wut ay jumtukaay yum ko waajale jumtukaay yooyu ba ci njëkk mooy yitte ku ne xam na ni yitte mooy cëslaayal yoon wii rabbi asaabi bil himmati la seen la sun borom moo tax himma nekk lu am solo loo xam ne moom la moom jumtukaay bi mu jëloon ngir laltaayu ko ab liggéeyam ñaareel tax nit ki mën a bàyyi xel la mu war a bàyyi xel ci lu mu war sottal tey ci lu jëm ëllëg ndax adduna moom fu ñu jaar la di fi waaje waaye ëllëg rek tax tax a jóg sëñ Abdou Khadre leen waxoon ne tazawwad min ad-dunya fa innaka raaxilun fala budda min zaadin li kulli musaafiri ma xam ne kon nag faaw kon war naa waajtaayu ragal yàlla mu takkaayoo ko muy muy moom nga xam mooy laxasaay gi tax takk ci ndiggam ngir mën a wéyal liggéey boobu yi wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa masuliya bi nag day mel lu séddale ko kon ñetti xaaj mooy digganteem ak jëmmi boppam ni mu ko sàmmi ci digganteem ak jëmmi boppam ba ko ñaari mooy ni mu sàmmee masuliya digganteem ak njabootam ak ni ko sàmmee digganteem ak ay taalibeem ndax ndénkaane euh, suñ borom ci ab jaam la ci jiitu mooy ay cëram ay cëri boppam cër yi ndénkaan la suñ moom dala ko jox am lum la ca sant war ko xam war ko sàmm moom mu teel a xam loola ba mu jëfandikoo ko ca na ko ko suñ borom sante làmmiñam wii lam ko tàmmal mooy jàng alxuraan tudd yàlla digle lu baax a tere lu bon noppam bii daw ci déglu lu dul lu gërëm loo yàlla waxtoo toog di wax ay caaxaan wala day jug day da bàyyi la fa kon sàmm na lam war a déglu lépp doon aw yiw ak lu baax rek tànkam bi mu tàmmal ko yoonu jàkk ak doxuk bokk mu sëñ Abdul Xaadir defar nag manaa foo fekk ñaar ñu jote ñu ne diwatoon ñun tay bi sëñ Abdul Xaadir doo ko gis fenn maa sëñ Abdou Khadr sëñ Abdou Khadr kum yar mbaa kum defar kon la ko jëmbat ci ñoom ba seen seen seen i jikko rafet nekk gi mu nekkoon imaam te eh, imaam raain loolu da ko doon masuliya da ko da ko doon sàmm mooy ñëw fi moom def lu dul noona mbaa doon ca la ko dal di corrigé ak koo mën a doon nag doon kilifa doon koo mën a doon doon di njiitu réew nga waaye nga juum wax loo wëtt wax mbaa nga def la wute ca saasa lay dal di ko rise du bàyyi mu jàll kon yég na ne kon am na responsabilité boo xam ne bu ko yàlla gàll ci diggam ak ñam war a jëflanteel ñëpp te loolu fekk nañ fi ba tey mu lu mel noonu kilifa gu mag def njuumte waaye ca saas rek la ko la ko daal du bàyyi mu jàll yëg gi mu yëgoon loolu nag taxoon na eh, mu daa solu dàllam di nemmi ko ay bokkam lépp dafa tab ci masuuliya bi mboolem fu mbokk nekk ci biir réew mi daana jóg di la nemmi ko ji di seeti ñi di di tuddi doom yi di jullee néew yi bari na ci yu sew yoo xam ne man nga ne bu dee kilifa am na ndaw yu ko mën a defal lool lu mel ni tuddi doom loolu am na ndaw yu ko mën a defal ak yeneen yu bari yu ndaw ndawaan yi waaye teewul lu ci nekk da daan jógal boppam ngir xam ne am na am na am na lu gàll ci waggam ba ba bi mu doonee xalifa sax nga xam ne mooy doon na Sëñ Tuubaa tey yégal nañu ko ko faatu mu mu bëgg a jóg dem ca bëgg caa dem taxaw jóg nga xam ne jàpp ne moom lam doon taxaw wër caa soppi dara doon dem na ba àdduna nag tënk ko ndax am na foofu àdduna lay tëj waaye moom gisul loola àdduna fii la ko tegoon ci biti loxoom taxaw yi nu wow nag moo taxoon euh, barab yi mu samp ngir tërbiya ak yar ma ma jàngal ak yar mbax daal gën caa ràññu ko ak bustaan nga xam lépp euh, ñi nga xam ne dañ dañ koo teg ci loxoom mu ñu xam ne am na lu war ci ñoom dana sàkk ko leen di jàngal sàkk ay jëwriñ yoo xam ne ñoo leen taxaw ci di leen di leen tàggat den leen tàggat ci nangoo liggéey defar seeni xol defar seeni jikko eh, ba ñaar yi nga juróom benn yi nga xam ne ci la Sëñ doon doon doon doon doon doon teg ab yaram moom foofu rek la ko tegoon ba ci njëkk mooy bii atun saaliha ngeen nga defar nit ki te defar ba jàkk foofu nga ko baraab boo xam ne day méngoog la nga bëgg def ci moom te donte lool nag lu jafee jafe suñu jamono ji ñu toll ndax dañoo beneen ëtt bu wàll si muy ëttub internet nga xam ne eh, yaatu yaatu ko daanaka boo demoon ci digg àll bu xonq ba nga nga nga nga gorfe it téléphone fekk man réseau fa yàq la ngay defar ci ñoom waaye seen jamono boobu lii tasaroogut kon bi atun saaliha Sëñ Tuubaa mooy lam doon jiital ci ab yaram moo waral sanc yi ak sanclu gi wala yu ñu sancal boppam mbaa mu digle ñu sanc ko yëpp ngir wut bi utum saatee boo xam la nga bëgg a def ci ña ngay ña ngay defar la fay nekk day méngoog loola duñ fa dégg lu may loola duñ fa gis lu may loola duñ fa dund lu may loola ba ko ñaari mooy xudwatun xasana loolu la moom mooy jëmi boppam moo koy doon mooy doon xudwa xasana ci ñoom day doon ko sotti ne ci seen biir ñuy xool ci moom te nit nag yàlla da ko binde roy ala kulli xaal muy roy la muy roy mooy la muy gis ka roy mooy ka muy gis fekkee ka ñuy gis nag li nga bëgg def ci ndaw li ka muy gis loolu rek a ne ci moom la muy jëfit mu di ko jës lool la nga bëgg mu di ko jëf suba day yomb kon mu kon xutwa xasana buy ne ci seen biir ñuy xëy di ko gis di roy ci moom ba ko ñetteel mooy daaneen tàggat ci xam-xam ndax xam-xam nag mooy laltaay bi nga xam ne lépp looy tabax te laltaay woo ko la ngay tabax ci màbbu la jëm surtout ki bëgg a tabax insaan kamil ki bëgg tabax jaamu yàlla bu ko ma sëkk ab jaam ba nga tabax eh, koo xam dafay nag gàddu responsabilité ëllëg te xam lam lam lam responsabilité te di ko dundal kon faaw xam-xam ma ma ngoo laltaay ngir mu mën a sotti xam-xamu diine bab lislaam te alxuraan da ci jiitu sunna topp ja ba ca topp mooy daanee tàggat ci jikko yu rafet dafa mel ni ko doon def ñaari enseignement enseignement théorie enseignement pratique théorie moom mooy la ngay jàng ci téere yi rek pratique na mooy lim lay jàngal da nga koy jëf ci kanam moom buy gis lu ci mën a jub lu ci mën a jubante mu jubanti ko di la woon aw yoon jikko nag mooy li nga xam ne su jagee ci nit ki lépp nit ki jag su yàqu lépp yàqu inna fil jasadi mudghatan idha salahat salahal jasadu kullu wa idha fasada fasada jasadu kullu ala wa hiya al qalb yéen bi wasalaam nee na am na ci jëmm wenn soo wax ne su baaxee jëmm jépp baax waaye su yàqoo jëmm jëpp yàqu damay xol ba ko juróom benn ma daane tàggat nag ci liggéey da wax naa léegi liggéey ci nga mën a wéer sa gannaaw ba mën a sàmm sa ngor mën a sàmm sa diine ku liggéeyut benn nga dem tàllali loxo daal di ñàkk sa ngor maa ngi agressé ji daal di ñàkk si diine moo tax walla fi daa léeb ne ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa waaye soo fexee ba ëmb sa sànqal su bopp nag du ëmb kersa kenn dangay moom sa bopp te Sëñ Tuubaa lam gënoon bañ ci yaram mooy toroxlu ci kanamu borom alal borom alal donte donte saalix la sax donte saalix la nit ko baax la jàmmkat yàlla ko yiw la am na alal tax nga toroxlu ci kanamam nee na sa diine bu doon ñetti xaaj ñaar yi ñàkk nga ko su fekkee nekkul saalix na zaalim la sa lépp diine nga ñàkk tawaaduun ila al ganiyi saalixi yudhibu sulusay diine kulli soxlihi amma tawaadoon li zaalimin falaa yuxmini diin la yaadan muqila kon juróom benn yi ci la seen baxaat tegoon ab ab yaram kon xam na masuliya boobu moom la jëmbat ci ñoom xam la ko ci ñoom ba ku ca jóge ku nekk da nga nekk jaam bu ko ma sëkk ab jaam matal dëgg kamaalu ubudiya dafa nekk ci yow waaye da nekk xalifa yàlla ci kaso bu ko ma sëkk ab xalifa ndax da bokk ci ñi dunda suuf sa nangoo liggéey doon as gor soxna da ngay sàmm sa ci lépp kon ñim tabax ñëpp nag loolu ngay fekk ñoom moo xam ak njabootam la moo xam ay taalibim la ko ci nag tabax na jaar ci loo xam tabax na ci yoon loolee ba ku la gis loolu rek lay gis kon dundal na sunna dëgg-dëgg de kon dund xadis bi ci boppam ci jëmmi boppam waaye dundal na ko ci ay ak njabootam dundal taalibim ba ñëpp sotti yan sunu moom ba defal ndimbal tawfiq te fayal na ko dolli na ko ay ngërëm ak i raxamaate ki xéewal eh, te yàggal fi njabootam dëgëral leen kattan ba ñu àggal seen salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah amin sëriñ Mamor ah, waxtaan wi ni nga ko indee ci jëmmal addis boobu di wax ci wàllu responsabilité ni ko Cheikh Abdoul Khadir defe woon lu am am solo la li nga li nga njëkk a def mooy tasil ko wutal Cheikh Abdoul Khadir bi mu jógee di jëfe addis bi yan ci yan baas la joggi ci yan kenn la joggi ba mën koo def te loolu am am solo la ñëpp xam ko nga wax ne daf cee yóbbuloo ñaari yëf ba ca njëkk mooy yitte ju kawe ak ragal yàlla sunu boroom loolu lu wér a wér la ndax responsabilité dafa metti dafa diis ah, ba tax na faw nit ki ragal yàlla door cee taxaw nam ca ware waaye tamit faw mu nekk ko am yitte ni nga ko waxee nga xam ne Seexul Xaddim loolu mooy mooy baasu mën hëjam méthode bi mu doon yare baas bi mooy uh, yitte ju kawe ba loolu ñuy nettali ne bi muy bi muy nekk gànnaar dafa waxoon du du du kum neex rek nga ñëw fa waaye joxoon ay melokaan ne ñi mel nii ñoo fay ñëw te loolu yaakaar naa valable na fi mu nekk fépp ndax sëñ bi ci yitte rek euh, yitte ju kaawe ja ku amul yitte du mën a ànd ak moom Cheikh Abdou Khadir nag loolu mel na ne kon jëloon na ci lu bëree bëree bëri ba taxawe responsabilité bi nga xam ne moom la ko sunu borom gàll ca taxaw gëm gën a rafete nga wax ne buñ koy jàngat moom liy wàllam ci addis bi moom da ci am ñetti responsabilité mooy moom ci boppam en tant que jullit boo xam ne suñu borom dafa laa dénk wax na la nii laa bëgg nga mel ni mu sant la ay jëf ci sa ay cër tere la ca mu fexe fexe ba responsabilité boobu mu taxawu ko ba cëri juróom-ñaaram yépp da ko taxawu la ca suñu borom euh, bëgg rek la ca doon def ndax noonu noonu la ko defee ci lim li yonent bi saa wax ne wa rajulu fi ahlihi raahin moom itam kenn ku ne gis na ne taxawaay ba mu cee war a taxaw tax na ko taxaw na ko noonu nga wax ci ni ab jullit yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ab jullit noonu la war a mel ci ay buy tànn tur ak ni muy dundee lépp Sëñ Abdou Khadir bàyyiwu ca dara nga junj lu am solo muy addis bi yonent boo xam ne tur yi li ci gën mooy maa hubbida ak maa humida te Sëñ Abdou Khadir fexe ba moom ay turam benn génn ci ñaar yooyu kon loolu lépp itam ñu bàyyi xel na ba mu koy def booba dafa doon def responsabilité mooy ginnaaw ñu bi mu jaaree fi ñu ko war a jaar la nga wax ne dafa teel a xam luy responsabilité ba tax na taxawu na ko nam ko war a taxawoo muy yar ak njabootam ba mu ginnaaw ba mu leen utalee ay tur yu sell waaye jàngal leen bañ ba ñu xam waaye mu li ñuy wax mu taskiyee leen defar seeni jikko ba nga xamante ni képp kuñ jaxasool maanaam dootoo leen mën a muñ tàggat leen ci jaamu yàlla ak euh, jëf ju jëf ju rafet Euh, waaye itam taxawu leen muy leneen lu am solo loo xam ne danañuy wax ne moom moo ko daan wax ni xawma jàmbaar ku ñu dimbale laa xam moom itam mu daan mu taxawu leen ci li mën te ñàkk ci seenu dund lam ca mën a taxaw lépp mu taxawu ko waaye yemutoon ci ñoom itam ak mboolem ko egsi woon ci moom rek te yàlla dogal ko rek daf la daan taxawu kemt layal kàttanam yooyu yëpp bokk ci mas masuliyaat yi nga xamante ni xamoon na ne da ko war a taxaw mu taxawu ko ba ca topp mooy masuliyaam bi nga xam ne moo doxoon digganteem ak ñi aju woon ci moom wala ñi nga xam ne dañ koo yaakaar ngir yàlla jaayantoog moom topp ko ñoom itam li ñuy wax la alxuraan di wax ne maa kaana li basarin an yutiya an yutiyahu llahu alkitaaba wal hukma wan nubuwa summa yaqulu linnaasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin nit ku yàlla jox xikma te fii bu ñuy wax yonent yi la suñu borom di wax waaye al ulama warasatul anbiya la ñuy wax te ñu mel na Cheikh Abdou Khadir ñii ñoo tax ñuy wax ulama warasatul anbiya ñoom it na ñoo na yonente meloon rek la ñuy mel bu nit ñëwee ci ñoom duñ la won seen bopp duñ la won seen dara waaye yàlla kuunu rabbaani yi dañ lay delluwaat ci suñu borom ba tax na ñëpp ñu aju woon ci ñu moom lépp la war ci diggante ak ñoom ci yar leen ci topp yàlla dëppale ko sunna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak moytu ko ak tooñ ak euh, dundee saw ñaq loolu tamit tàggat na leen ci yar leen ci loolu itam ab responsabilité loon bu aju woon ci kawam te def na ko na nga xamante ni mooy ngën jaa rafeti defin ba képp koo xamante ni jaar nga ci ab loxoom ba jugee ji la ñuy seetlu ci yow moom mooy nit ku am njariñ ci société société bi ngay doon waaye doo bokk ci ñi nga xamante ni dañuy indi genn gàllankoor ci société bi waaye nga junj lu am solo ci ni mu daan taxawee ci ay responsabilité am muy kenn du def ci moom ab safaan mu teewee ko ba noppi noppi ca muy lu am am solo di bind boo xam ne euh, ñëpp war nañ ko cee fekk si li nga wax ne nit nu mu mën di toll boo defee mu xaalafa lu wuuteeg lu suñu borom euh, na ko suñu borom bëggee daf lay daal di corriger daf lay daal di jubbante ci saase. man yaakaar naa bu yàggul rek seetaan naa ci ci benn groupe whatsapp benn vidéo boo xam ne ki ko dugal daf ci doon bàyyi bàyyiloo xel ci yu bëri yi nga xam ne léegi ñun dañ koy def te duñ ci bàyyi xel dafa mel dafa am ku toogoon. yaakaar naa ah, ab daayira la ci biir wax ji mu koy wax ne muy wax ne am na lu mu ko wax ne ko bu ñu ci àggee bu soobee suñ tubaa sëñ sëñ Abdou Khadre daan ko bu soobee yàlla la wax ne bu soobee yàlla la ñuy wax mu mel ne daa bëgg a wëyal waxam te te kuris ci moom ci boppam kurisewul wax ji sëñ bi taxawloo loo ko ne ko bu soobee yàlla la wax ba mu wax ko ba noppi mu door ko bàyyi mu àggale wax ja yooyu yëpp itam ah, nekk du koo xamante ni ko ñeme responsabilité la te di ko taxaw na nga xamante ni mooy mooy gën jaa ah, rafeti taxaw taxawin waaw euh, leneen tamit junj ko ko muy lu am solo loo xam ne dafa ko daan taxawee siiwee ci te mooy lim daan jël responsabilité ba mat sëkk ci tudd doom yi ak taxawuñu fi bàyyikoo muy yu am solo yoo xam ne day mel ni ay détails la te yu bari solo la ndax dafa li ne ci ginnaaw ci wàllu social moo bari ndax dafa bari yu bari yu ci aju loo xam ne ci mbirum social la daana ko may muy xam na ma demee taxawaay yam ca war a taxaw mu di ko ci taxaw kon buñ koy tënk daal ci gàttal. day mel na moom lim moom ci addis bi lépp def na ko gën jaa rafet defin kon loolu moo ko may euh, seere yu rafet yi ñu doon rafet euh, yi nga xam ne moom la àddina jëpp seere ci moom ci ne nitu na la woon kon bàyyiwul dara ci sunna xam naa ngir njëkkante ak euh, waxtu wi dañuy daal di bàyyi suñu ñaari mbokk yi sëriñ Sam Bousso moom sëriñ Abdoul Wadoud moom itam mu indi ñu ay commentaire ci loola toll ak juróom minute rek ci tomb yi nga xamante ne ni sëriñ Fallou ak sëriñ Mamour andi nañ ko fi bisimilah. auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikhul Khadim ñu nuyu mbokk yëpp di ci jiital ki nga xam mooy Cheikh Mouhamadunil Muntaqa di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi ba mboolem naal yi nga xam ne naal ko suñ borom kàttanal ko ba mottali ko te ñu ànd ko moom di nuy bu baax it ki nga xam ne mooy kilifa kër gi di Serigne Cheikh di ko ñaanal moom it lépp loo xam ne it yéene na ko liggéeyal. way juróom yi suñ borom kàttanal ko ba mottali ko nga xam ne moo teewee jataay bi mooy sëriñ Sidi mi nga xam ne moom la sëriñ bi teg ci loxoom liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu màggal gi di ko ñaanal moom it suñ borom defal ko ci ndam te ñu yàgg ko ànd ak moom di nuyu mbokk yi nga xam ne it ñoom lañ seqal jataay bi sëriñ Fallou sëriñ Mamor sëriñ sëriñ ok di di leen nuyu bu baax a baax a baax di eh, rafetlu bu baax a baax it waxtaan wi ni nga xam ne noonu la noonu la taxawee eh, day mel ne xadis boobu nga xam ne moom lañ eh, sukkandiku ci waxtaan wi buñ dégloo ñaari mbokk yi nga xam ne ñoo ñu ko doon leeral day mel ne lépp loo xam ne les si mat a xam la leer na naññ su ma déggee bu baax a baax rawatina li nga xam ne moom la suñu fàllu leeral day mel ne masuliye bu ñu ko doon wax mooy ndénkaan loo xam ne suñ borom daf koy teg ci lenn ci ay jaam ci noonu nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi ci xadis bi ca fa fa fa gën a kawee ba ca fa gën a suufe kon day mel ne masuuliya ndénkaan la ndénkaan loo xam ne du loo xam ne dañ la koy dénk ëllëgee ñu bàyyi la nga dem waaye bu ëllëgee dañ lay wooj woo laaj la lañ la dénkoon noo ko taxawee kon day mel ne ndénkaan loo xam ne daa am lu ñuy sàkku ci yow ngir nga def ko ca bu ëllëgee nag ñu woo la laaj la ndénkaan loolo ana naka nga ko taxawoo naka nga ko saytoo day mel na nag ngir nit ki mën a tontu bu ëllëgee tontu boo xam ne bu yàllu lay doon bu baax lay doon faw mu yëg ne loolu kon dénkaan faw mu am yëg-yëg bi xam ne loola kat ndeke du luñ ko mayoon waaye luñ ko dénkoon euh, gannaaw ba mu xamee loolu faw mu xam lañ ko dénk faw mu xam lañ ko dénk mooy lan ndax ginnaaw dañuy sàkku ci moom mu am lu mu ca def faw mu xam loola mooy lan naka noonu it bu xamee loola mooy lan it faaw mu xam lan lañuy sàkku ci moom mu def ko ci kon yooyu yëpp faw mu dajee ci nit ki ngir mu mën a am li ñu tuddee mas masuliya man koo yëg man caa taxaw taxawaay boo xam ne bu jaadu lay doon ñett yooyu ñu wax yëpp nag saa yoo xamee ne benn dañ na ci muy mu xam ne lii ndénkaan la mu xam lañ ko dénk lan la xam lan lañuy ñuy sàkku ci moom ngir mu taxawe ca bu ci dañ rek daanaka euh, la ñuy sàkku ci moom du mën a am mën nañu jël ay misaal ki nga xam ne masalan moom lañu jox mu yor kilif teefu li ñuy tuddee réew mi bu fekkee ne lañ ko jox daa jàpp ne may luñ ko may la wala wala moomeelu boppam la amaana lam cey def dana wuuteeg la nga xam ne moom lañ doon séentu ci moom naka noonu bu fekkee ne dafa umpale lañ ko dénk lan la naka noonu it du mën a xam euh, la ñuy sàkku ci moom it bu ko xamut it du ko mën a def loolu it day day day valable ci mbooleem ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi tudd na leen ci lenn nit war nañ koo xam mooy euh, yooyu nga xam ne ndénkaan loolu nga xam ne moom la dénk kilifa yooyu dafa am boo moo ci ëpp solo muy nit nit bokk na ci ndénkaan yi nga xam ne moom la suñ borom di dénkaane ndax kilifa gi nga xam ne mooy réew bokk na ci liñ ko dénk mooy ay nit yoo xam ne war na leen a euh, war na leen a taxaw kilifa gi nga xam ne kilifa ak diine la bokk na ci liñ ko dénk mooy nit naka noonu it ki nga xam ne mooy kilifa kër it moo xam boroom kër gu góor la wala gu jigéen bokk na ci lañ ko denk mooy nit kon war na ñoo xam nit kooku mooy kan xam ne nit suñ borom daa am nu ko bind xel la yaram la waaye ruux la bu ci nekk rek daa am taxawaay boo xam ne moom la laaj ngir ñu mën ko see taxawoo saa yoo kon nit ki umpale na benn ci yooyu rek amaana lam xam xëy na mën na caa taxaw taxaw bu baax waaye la nga xam ne moom la umpale taxawaay ba mu war a taxaw du du mën a baax. loolee waral euh, ni nga xam ne noonu lañ mbokk yi waxee li li nga xam ne moom la yonent sallallahu alayhi wax ak noonu nga xam ne moom la ko Sëriñ Abdou Khadre di jëmmalee doon loo xam ne lu leer la loo xam ne bu fekkee ne noonu ñu ko waxee noonu la war a noonu la amee day mel ne jafe-jafe mën naa ba ñaaw waaye fii ñu toll nag ci jamono ji day mel ne jafe-jafe am na kon problème am na mooy ñiñ dénk day mel ne benn xamuñ na dañ leen a dénk wala xamuñ lañ leen dénk wala la ñuy sàkku ci moom ca lañ leen dénk day mel ne defuñ ko kon loolu it problème boobu faaw ñu jéem a xool fan la jafe-jafe bi nekk dëgg-dëgg ngir ñu mën a indi solution bu ko defee nag nit ki nga xam ne moom laa doon junj sànq nga xam ne moom lañ dénk euh, rawatina boroom kër war naa xam ne kon nit kooku dafa am ay dafa wuute xel ci la yaram ci la waaye ruux ci la day mel ne lu ci bari nag ci jamono jii day mel ne wàll woo ko xam mooy wàllu ruux day mel ne dañ koy doy dal bu baax a baax a baax mooy waral jafe-jafe yi ñuy gis ci jamono jii Euh, gis nañ rek bu yàggut ay loo xam ne xëy na phénomène bu bees la muy éco euh, xale yi nga xam ne ñoo nekk ci école yi di jàng gis nañ ne fan yii biñ leen waxee ne tëj ngeen ñuy indi ay ay ay ay ay ay mbir yoo xam ne yu doy waar la di di lakk ak di yàq ak yu kenn xamul loolu kon day mel ne yar bi nga xam ne moo waroon ci ñoom te mooy yar booba la ci jiitu mooy war yar seen ruux day mel ne dafa des bu baax a baax kon bu boobaa ñi nga xam ne ñooy kilifa yi war nañoo bàyyi xel loolu bu baax a baax. ngir ñu mën a indi solution ci loolu kon xam naa comme waxtu wi dañoo njett lool duñ mën a guddal xam naa dañuy taxaw foofu rek di rafetlu bu baax a baax a baax waxtaan wi ni ko suñ kilifa yi defee di ñaan suñu borom rek mu defal ñu dégg ak topp wa axiru daawaana an alhamdulilahi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Serigne Sam am na solo gàtt na waaye am na solo lool ndax tënk nga lu am solo mooy nit ki xam ne lii ndénkaane la ndax nit dana yore mbir te du xam ne ndénkaane la waaye mu xam lan lañ ko ca laaj mu war koo taxawe bu xam googu amul rek ñaare day la mu war a def ci masuliya boobu mën na ko bañ a def nga junj lu am solo tamit ne li nga xamante ni mooy ndénkaane luy ne ci loxol kiñ ko dénk la ci ëpp solo mooy doomu aadama doomu aadama xel la ak ruux ak yaram lenn lu ci ne am lu mu laaj ndax loola ña ngi ko cay def nañ ko ca nañ ko ca war a defee nga wax ne si Abdul Xaadir gaay baax yi fi nekkoon taxawaayu am solo yi nga xamante ne ni taxawoon nañ ko ba seen masuuliyaat yëpp ñu taxawee ko ngeen ji taxaw ndax taxawaay yooyu yëpp ñu ngi am léegi ci ci ci mustawaay yëpp mel na ne dañoo seetlu ne wàllu ruux gi mel na ne sooxe na lool te moom itam mënta ñàkk ci doomu aadama ndax bu ñàkkee rek ci la société bi di am ay yu ciy feeñ yoo xamante ni daf ko yàq nga joxe ci misaal lii ñuy gis léegi mel na dañuy jàngale rek te yaratuñ te dafa mel ne yar googu moo war a jiitu sax njàngale mi kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm gàtt na waaye am na solo lool. ok kon dañuy tëje jataay bi rek ci ñi ci intervenir ci Serigne Mouhamed Lamine Diop. ñu jox ko kàddu gu moom itam ci lu toll ci juróom mi minin mu def ay commentaire ci waxtaan yi nga xamante ni jaar na fi bisimilah sëñ euh, bisimilah jërëjëf sëñ Mourtalla ñu ngi sant bu baax xam naa dañ koy tënk ci euh, kullukum raaxin ji sëñ bi tàmbalee woon rek ndax euh, nit ki sàmmanteeg sëñ Abdou Khadir dañ ci indi tuuti indi tuuti ci sunna si waaw ndax euh, boo xoolee yàgg naa ko misaal ci bitig boo xam ne dafaa ñëwoon di fa am lu mu jënd borom bitig ba jox ko addiye mu ne ko addiye ji téye ko ndax addiye soo ko joxee danga ko war def sa teewu bakkan li ma gis moo tax nga jox ma addiye ji te yaakaar naa sàmmante googu ma def bu ko ñëpp defoon lu waay def dana dal xelam moo tax ma ne ma wax la tuut ci maandu gi baxdaat mosoon na faa jóge am ab bitig bu mu jege wàcc di jënd lu mu bëggoon borom bitig ba nuyu ko daldi ne addiyaal na ko mu ne ko njëg gi jàpp ko kersaa la jàpp du leneen addiya boo ko dee joxe sa coobare ci nga koy joxe gis ma ma teew tax ngay joxe bi téebi naf si laa bëggoon yaakaar naa kooku du def ni nit ñi def tukki ci béréb nit ki toog yore portable di sëb taalibe nga bëgg a jël portable bi tax nga naan kii de xanaa seerul fii portable bi xanaa seerul fii nga xam ne kersaa ko jàpp mu daan ah sëñ bi naa la wutal bala ngaa kooku def loolu sunna it nit ñi dañuy seet sunna bu yomb rek ñu di ko def sunna bu yomb rek la ñuy def waaye jafe duñ ko def moo tax man la sunna dafay ay xeeti xeet am ci metti am yu tuut am ci yu rëy am ci yu tuut seex ji li yëpp la defoon danaa la jox menn misaal tabaski gi laa lay misaal sunu yi metti duñ ko laal sunu koor moo jiitu woon seex ji li yow ma arafa daana ko woor yow ma seex ji li yow ma tarwiya daana ko woor woor arafa yii yëpp na nga ba ko fa te roy man yoneen ni mu ci sunu si bu doon mooy suuna si doonu ci tiñ mbaa ab bési daa mel ni gob bi la kër yëpp yëpp a yem moom daa mel ni diine moo ko moom daa mel ni daa yuru pusaam daa mel ni moo wutu yeneen sëñ Cheikh Abdou Khadir nee na nit ki bu fekkee sàmmul kàddoom lépp lu la wax ne la sàmm ko bu jàpp ne sàmm ko ndax ku sàmmul kàddoom du sàmm leneen te loolu nag dafa bari jamono ji nit ñi bu ñu ni trois heures lañ fi ñëw cinq heures lañ ñëw Cheikh Abdou Khadir nag moom bu waxtu mu la wax balaa jot moo ko jiitu ndax nee na woo nit ñi bañ daje nga bañ a ñàkk nga bañ a teew nee na mooy war yi gën a rëcc ci àddina te nit ñi dañ ko dañ ko woyofal lool moo tax li nit ñi ñëpp sàggane béyu ma mag a gone seex ji li moom fii la mane ne képp ku roon asamaan mooy fonk ab déel bañ a war moom lu mu la wax faye ko bor moom lu mu dig loolu la nar lii rek a tax mu néewi noonu waxtu mbooloo mi daje muy julli xiit mbaa ñu daje ajjuma ji moo njëkk teew kenn du nañ xaar ilimaan tabaski mbaa korite ca laa ko gën di nawati kenn du ne moom laay négati otoom bi moom nga njëkk seen saa desee fukki minit mu ne gede na jege kat ngir weñ gi mën naa sikk kat wala mu paan yeexu doxin kon balaa waxtaa jot ca lay dem def loola li nga xam ne mooy sàmmoon dëgg-dëgg rek sëñ bi euh, sëñ Fallu doon ko wax kullukum raayin sëñ bay jaxat nee na du caagee ni mbooloo moo yor di ko sàmm ku juddu ku ne te am xel am nga juñ la booleel liñ la booleel mooñ say cër da ngay sàmm say cër bu noppi soog a mën a sàmmal keneen di cëram waaye ku sàmm di cëram mun sàmm leneen nee na wax du xëyee dañoo bëgg def loo xam ne lu baaxul la ngóor lañu téye mu misaal ko ci bëy ak boy waaw mu ne euh, bëy boy la bëgg te boy it boy la bëgg ci bëy seytaane mooy boy gi cër yooyu bëy yi buñ boyati kon nag kenn du war lu door sa cër mu jëm ci lu neexul yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Lamine Euh, am na solo yooyu nga tënk ci si Abdul Xaadir yooyu euh, mata jàpp la te yóbbuloo ko naka noonu euh, sëriñ Sam ak sëriñ Mammoor ak sëriñ Fallu Bousso kon daal waxtaanu al mas'uliya mi ngi noonu muy responsabilité ni ñu ko lislaam jàngale ak ni nga xam ne noonu la ko borom bis bi ñu jëm jëmmale kon li ci des ci ñun la ñun ñoo war a xool fa mu tegoon aw tànkam ñu jëm ca góorgóorlu roy ca ndax ñoom loolu lañ fi doon jariñ euh, aay boobu mu junjoon wa ja'alnaahum a'immatan yahduuna bi amrina ñoom loolu la ñuy jariñ waaye jariñu ñu ñu di leen yéem di leen waxtaane seeni baax baax te ñun duñ jéem a mel na ñoom xañ na duñ mën a mel ne ñoom waaye li ñu war ñun mooy bis bu set ñuy xëy di góorgóorlu ca seen melokaan yooya ndax buñ ko defee kat euh, danañu raw suñu suñuy maas kon xam naa waxtaan yi dañuy jox sëñ Abdou sëñ Mbàkke Abdoul Rahman mu tëj ko ci ay kàddu incha allahu taala ndax waxtu wi jege sana bisimilah sëñ Mbàkke bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wa sallallahu gi ñu yëkkati ci turu sëriñ Sidi Mokhtar mi sëriñ bi dénk uh, taxaw màggal gi kàddu yi sant la yi nga xam ne ñoo ñëw wuy si ko ci bi mu leen doon liggéeyloo waxtu wi xat na lool tàmbalee ko sëriñ Mourtada mii doon idaara jataay bi Cheikh Mawlou Fadil Bousso Thierno ah, sëriñ Mamor xam sa diine ak sëriñ Sam Bousso Abdoul Wadoud ak sëriñ Mouhamed Lamine Diop ak sëriñ Abdoul bu Bousso mii ubbi woon jataay bi ci xasida yu am solo yi sëriñ baa ngi leen sant di leen ñaanal yàlla yàlla dafa leen jàmm dafa leen tawféex eh, ci barkeb borom bis bi tax ngeen sawar ci wuy si wootam bi ci njabootam ngeen bokk moo tax xam naa ba leen wooyee ci saasa ngeen nangu bàyyi lu ngeen jàppoon lépp mi ngi sant it mboole mbokk yi fi teew di ay kilifa ñëw àndak moom ngir gunge ko ci jataay bi mu bokk ci jataay yi ñu waajale nag bisu sëñ Abdou Khadir bi ñu mal di ñetti fan ci weeru muharram tolloog le 12 août incha allahu taala sëriñ baa ngi koy fàttali ñëpp ci taxawaay yi ñu ci war a taxaw ñaan jàng alxuraan jàng xasida ak bernde lépp daf ko addee Cheikh Abdou Khadir sunu borom yokk ay leer yokk koy ngërëm mu ngi fàttali ne képp koo xam ne ba da nga ñëw ci bis bi it ndigal yi sëriñ bi joxe. te waa kër docteur di ko wax nañ ko bàyyi xel di raxas ba set di jëfandikoo gel yi waaye takk ay masque ak moytu jaxasoo bi neen daal mi ngi koy fàttali ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm euh, ñu màggal ko ci jàmm yàlla baaxe mën na cee doxe sax ci barkeb sëriñ bi jàngoro jeeg li ñuy ragal lépp doxe fi doxe jeex yàlla ko yàlla def ñu ngi sant ñëpp di sant it taskatu xabaar yi nga xam ne ñoo bàyyi seen yitte ñoom ñëpp ñëw ànd ak sëriñ Saliou moom sëriñ Modou ci euh, ñëw jël jataay bi anam gu rafet gi am ñu koy jàll direct am ñoo xam ne it dañ koy teg ba ñëpp mën te jot ñi ñaanal ñëpp jàmm di leen loo xel magal gi it wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. taal suñu ñaan chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV ñëppay dañ ak réer Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ ak réer Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer